sama njaatige la. Mhm. sama doom liggéey naa moom sept ans fi mu toll nii. macha allah ah do papaam si la. donc dëgg bu nekkee ndaamaatu. Mhm. la ñuy jëflante ba ni mu retraité ba ma ko fekk. Euh, euh, corniche corniche corniche ba ba liggéey. macha allah Ablaye xam naa ko. Mhm. man lim defal sëñ Fallou képp. képp képp ja yeman. doy na ma sëkk. macha allah taxaw fa laay taxaw fu mu dox maa ngi ci ginnaaw. macha allah maa ku ma am ak ku ma àndal incha allah. macha allah Ablaye Sylla rek incha allah. incha allah waaw taalibe la. Mhm. jullit la. Mhm. Ah, tey ña xam lay jullit di ci defal yàlla lam man. Mhm. yàlla xam ne li muy defal aw nit. ci lu ma xam. ci koor. li mu fi financé. wallaay ah, màggal li mu fi financé. wallaay ci ngir yàlla kese ak seen fan. ndeysaan Ablaye Sylla man daa jàppale tey man daa jàppale te kat. bëri ko bu bëri ci mbartal la mhm. ku ko puus mu dem ku ko puus mu dem incha allah incha allah waa kër sëñ Fallou ñëpp nag mhm. ah na nga ci ginnaaw ko sëñ Abdou Karim maa ngi ci maa ngi ci maa koy na waaye nag Ablaye ñëw allah tey sëñ Fallou fii ci xayra Euh, vraiment taxawaay bu am solo boo xamante ni Abdoulaye Sylla am na ko ci askanu xayra yi di jàppale waa xayra ci li nga xamante ne mooy mankaan ndox bi Abdoulaye Sylla moom na doobu ndëkk bi la Abdoulaye Sylla njiital ABS borom se 50 borom Ecotra ki nga xam ne tey jii mooy taalib Serigne Touba yàgg ak liggéeyal Serigne Touba dégg nga témoignage yi nga xamante ne moom la ma ngi xayra def ci moom seex ki def lii daal doomi dëkk bi la nekk taalibi Sëñ Touba si la moom daal lii rek moo yitteem dimbali doomu aadama yi ci kàttanu Sëñ Fallu. waaw. moo gagné élection ci barkab Serigne Touba fa si yéene doon. président président ci allah. loolu laa koy ñaanal. waaw ngay ñaanal kat laa koy ñaanal. Mhm. ma dara xaw ma dara. waaye am la maa ngi koy ñaanal. Mhm. waaw loolu daal mën naa ko cee jàppale ci ay ñaan. waaw ak carte bi. macha allah am na solo. waaw ñun waa Xayra Doole xam ne jàppale nga ñu ci ndox rek loo wax lañ wax. ndax mën naa ne luy bëgg mat fukki at ngi nii. Mhm. ñoo ngi ci ñàkkum ndox. Mhm. fukki at yàlla ñu koy bëgg am. ñoo ngi ñàkkum ndox daanaka ba suñu xale yu ndaw ñii di wër fii ñëpp. Mhm. seeni doom a ngi di nun ñooy seen yaay te booba léegi ñoo ngi root. dëgg naa ne kas bu daaw ba kas rajab diw si waat. boobu na xeliwu Xayra Doole. ñu indil ndox moom mu ñu indil ndox ci deux nga xam na tey ñëpp a ngi naan tam doon ndox mu neex ne ko lu mu bëgg rek ñoo ngi ci ginnaaw nee ko jox nañ ko suñ loxo mu bëgg rek ñoo ngi ci fan yëpp ñu ngi fii indi ndox ñun ndox mi moom mhm. ku ñu ko indi rek ñoo ngi yow a ànd foo taxaw rek taxaw nañ sa ginnaaw nee ko jàppal ne xayra day ñëpp a ngi ci ginnaaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Abdou Lahad Diop la borom seetal nay ndox yi fii ci sanc Daaru Salaam bi gis ngeen ko nii lii moo fi xew vraiment ci njàpp ndalu Serigne Saliou si la bi nga xamante ne mooy coordonnateur départemental bu Abdoulaye si la tey bu ñëw fii di leen si ci seetam la yi nga xam ne Abdoulaye si la dugal na ko ci biir Touba ak li ko Lahat Diop borom système bi ak Lat yaatal boroom xalaat bu bi ki nga xam te moo jug rek di dimbali Touba ak su ngeen ko nii.